yu fare ci syndicat autonome bu yor wàllum réparation navale wëy di doon ñu tëggaat contrat de concession yu chantier naval yi nga xam ne ni Dakarnave nguurum Sénégal ak société portugaise bu ñuy woowee Lisnave International SA ñoo ko xaatimoon. dañuy continuer rek lañ doon def parce que génnoon nañ fi ay génn pour que rek suñuy kilifa dégguñu lu jëm ci contrat de concession bi lié Dakarnave ak état du Sénégal. ñu xaatim ko ci atum 1999 mu waroon am ñaar fukki at ak juróom bile contrat daana jeex ci atum 2024. ñu si bëri am nañu ay problème parce que xawuñu seen avenir fan lay jëm xamuñu au delà au lendemain de juin 2024 ndax ñoom daañu continuer di liggéey wala déet. ay fan rek des ngir ñu dem ci élection général yu représentativité centrale syndicale yi yii la liggéeykat fas yéene jàppale union nationale des syndicats autonomes bu Sénégal ngir ñu mën leen dimbale si seen i xeex. dañu ñëw tey si ànd ak euh, di soutenir euh, liggéeykatu Dakar Dange ci seen i tawat seeni mëbët seen i ñaxtu. mu nekk ci campagne bi ngir waajal yii la jongante UNSAS fas yéene taxaw waa Dakarnave. war nañu changé maanaam modd bi terme yi nga xam ni moom la ñu woon a woon contrat boobu liggéey liggéeykat yi am ci part maanaam ñu bokk ci biir capital social bi am ay présence ci biir conseil d'administration yi di fekkee fu ñuy nas ak di nocc loolu la liggéeykat yi di laaj. élection de représentativité bu centrale syndicale yi daañu ko amal fukki fan ak ñaar ci weerum décembre ci atum 2024 te sax ko ci jël raw gàdd ga yaay doon syndicat bu gën a am doole ci biir Sénégal.